الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم عنك يا محين وبك نستعين barkeb Cheikh Muhammadul Fadilu déglu leen tey ma bàkkati mbaro yàlla may na ko laa sindanooro déglu leen tey ma baakati mbaro yàlla mi fale fal na seexi faadilu moo aayata yoo may na ko rabbana ko dogal ca xaddiimi bil xaddiimi al basiiri nasiiru lamu def ku ko bañ yaa di defoo la mu axiba mooy waxi buuru bur yàlla lu mu def ku ko bañ yaa di defoo la mu axiba mooy waxi buuru suñ fàllu jokk naa ca xalifatu manoo yeslu naa ca dallo bi ca jokk naa jekk naa jekki naa dootu man di wareelu bareeru jàll nan war ca gaal ga ca mbuuro waaxu nan ba ca waax ba ca mbuuro irkaboo gaayi nan ñaani paaso seexi faddilu gaal gaa ngi teeroo irkaboo gaayi nan ñaani paasoo seexi fàddilu gaal gaa ngi soobu nan sappe nan jàll nanoo gaaju nan ba ca géej géefa mbuuroo suñ fàllu sëmbu nan sangu nan jàpp nanoo sugal na ca duus ya fa mbuuroo sant naa sant naa sedd naa xalifa maa yafal suuru jaaru naa jandi naa mandi naa daane naa faati njaay mee mbuuru bëmb naa bàkk naa sama mbaro làng naa maa ngi way sama géeru sëñ Fallou làggu na wàlli yoo wàlli na lang na dul ma wàlli sant Cheikh ma ànd ak mag ji koo gi sëñ Abibu Mbàkke njabootu aji dara ajiratu daba Jóob Mbàkke xewar kër Maam Moor Jaara ñu at mu jot ñu indi ko fi nag di ci sàkk ngërëmal sëñ Alaaji Mamadou Fadal ci bisam bii rek at mu jot ñu indi ko fi di ko def addiyee soxna sëñ Fallou ajiratu daba Jóob ak njabootam sëñ Abibu Mbàkke ngi nii di kilifa gi ak sëñ aram yi nag ki rakkam ak ñëpp rek man la soxna May Mbàkke Poroxaan barki démb lañ jóge Poroxaan am fa kër liggéey fa soxna jaara jóge ci soxna jaar jaara ñëw ci Maodo Fadal lu ñëw rek yàlla nañ ci man dara ci barke sëñ Fall xaa ma jox la sëñ Abibu moo xam ne mooy kilifa gi euh, ñu ngi nuyu ñëpp euh, ñëwoon rek doon jébbali si giléem gi nga xam ne euh, màggal ak sëñ Fall bu nekk dañuy ñëw indi ko Euh, muy waa kër nag soxna Aji Daba Diop di man mii di sëñ mag di sëñ Mara Mbacke ànd ak soxna May sama rak euh, sëñ Aramine ak njaboot gi yëpp rek euh, di ñaan rek ñu gën koo mën a def ba at mu jot ñu di ko gën a mën a indi di santaat sëriñ Touba bu baax rek bi mu ñu boolee ci màggalu Kazu Rajab gii Euh, ñu ngi sant nag ñëpp di gërëmaat bu baax Adji Daba Diop euh, di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi ba yéen yi ñu am ci liggéeyal Cheikhul Khadim lépp rek euh, Cheikhul Khadim mottali ko di ñaanal ñëpp jàmm njaboot gi yëpp rek Cheikhul Khadim defal ñu jàmm ci barke borom bis bi di Cheikh Mamadou Fadal waa jërë ngeen jëf. auzu billaahi mina seytaani rajiim barke sëñ Tuubaa barke sëñ Cheikh Ibrahima waaw tey de. ñi mbooloo mi fii at di eh, di daayira soppe sëriñ Modou Moustapha Fall ñi dongoy sëriñ Modou Moustapha Fall maanaam njabootu sëriñ Moustapha Fall gu góor gi seeni donga ñoo dajaloo ni ci turu soxna Jembeng soxna Dior Diop ñoom ñooy jëwriñ yi ñëw nag fii ci kër sëñ fekk fi sëriñ Abo sëriñ Abo nag moonu moom ndey baay waaye doom boo amee kër ndey kër baay daa tooge xalifa ak sëriñ Fallou woote Kazu Rajab ñu ñëw ngir sëñ Fallou waaye ñëw nañ fi nag ngir njabootu Cheikh Modou mu Fall ndax soxna maam say Fall waajuram ba bokk ak sëñ Modou Aminta Ndey moom ñii ñoo wekk benn wu góor seeni i goro ñoo àndandoo nag indi seen addiya ñëw fii man Khady Mbaye Diop Baye Fall mii ci café gi nga xam ne at mu ne nii laay def moom di ñaan euh, nii ma ko fi fekkee bu déwénee yàlla na ko fekk déwénaata di jeeg ba mu doon téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci barke maamam ju baax ji Cheikh ci barke maamam ju baax ji Serigne Touba mii nuy ndax Serigne Abo kat ñun dafa waroon a dis ci ñun lool te wayef tooy ci saa bu nu ñëwee lu mu xat-xat danaan Baye Fall yi ñëw leen ñëw leen jàll leen lépp soxna maam saya wax na dëgg ndax laaw la cet sunu sang ba bu liggéeyoon liggéey bi mu tere kañal doon tere tay kenn du ñëw waaye dafa defar cere ji ba mu laal ko ba mu saf ma ne gën demee ña xam ko yàlla fayal njaboot gaa ngi toog ni ñi ñëpp njabootu Cheikh Modou Moustapha Fall lañ soxna jembe nga nga ne sëñ Fall Faati Kan sëriñ Saliou Fall Fat Sow waa këram a ngi ci sëriñ Mbacke Fall waa këram a ngi ci sëñ Abdourahim waa këram a ngi ci sëñ Mbacke Fall mu mag moom daal bu ma limee damay jum waaye njabootu goro yi sëriñ Modou Moustapha Fall doom ji sëñ Moustapha Fall am daal am na ci ñoo xam ne seeni gole ngi ci ginnaaw Cheikh na jembe nga ñu ànd ñëw fii di siyaar sëriñ Abo barakata di ñaan yàlla na fi yàgg lool te wér di tudd kat yàlla na sama soxna si Baye Fall bii sëñ Cheikh Fall ndigal moom ma ko sedde muy sama sama sama rak di sikarkat noonu fii diggante Mbàkke Tuubaa moom ño fi tudd yàlla lii la yàlla dogal ci noonu ñëw nag ànd ak daayira bi soxna Jembeng di ko tuddal yàlla di siyaar sëriñ bi lool moo ñu bismillah man dal la ilaha illallah am di faal seex Moustapha Fall seex am di faal yaa mat boroom laa ilaaha illallaah fa yàlla yaa xar baax yaa xotig leer faal géeji leer yaa koy maye faal laa ilaaha illallaah fa yàlla la ilaha illallah la ilaha faal illallah faal Seex Baay góor yaa mat borom faal la ilaha illallah faal waaw Baay Faal yaa ngoogu alaaji falliloo ndaama laa jaraway jara kañoo maa ko kañ bani kajoori jooro ku ko bañ maala bañ toj sa bañoo ku ko mere te nga wey siigi ku ko bañ boo demee ci bàmmeeru danga gis mu nakiir ak nakiiru ku ko bañ boo demee fa siraatu doo fa jàll ndi doo am sufiiru ku ko bañ naari jël xaali danoo mbal dal gis nga fi yaa sufiiru maa di xaadimu ahmadana maay géwal fa këram moo di géeru bamba naa bàkk naa sama mbaroog faayilun laawa yoon man na góoru xaadimul Moustapha maa ko wayoo maa ngi way Sëriñ Falliloog Cheikh Basiru Sëriñ Fallilu xaadimul Moustapha maa ko wayoo maa ngi way Sëriñ Falliloog Cheikh Basiru fiilu naa faale fadlalallaahu yàlla di buura lii nga neel awakaadu ko layo man yasa ku ko suub mooy xadiiro sëriñ falilu sibtu balla ma fii rufa ngayo doomi baayi balla jooro baayu mbeen siptu maam astawaalo bu soo maam jaara du bàcci njuuru mbër ma na ca géej yëfa mbuuru bambanaan na ca géej mbuuru nil ko sukka teg moo ko wax man di nan kaasi buuru rembat nan falax nan moo nu kaasi buur wuute naa kaasi beero baayi faatimatin maa ko fatu sama naar bi dal na te wóoro baayu seex murtada la gërëmoo baayu may muuna deesu ko jooro bàyyi muuminatin maa ko gëmoo ku ko gëm dal di gënte nga buuroo baayu aaminatin maa am ku ko am dootu xaaraani reeroo sëriñ fàllilu baayu musulimatin maa ko ku ko mus dalli suukara seeroo baayu mbeen baayu may muuna mi mooma may soxna yi denc naa ba ca mbuuro baayu ayisatin maa ko xasoo googa géej dootu feer maa ngi fuuro mooma may ci yére maa ngi solo donnu loona ma ab sabaduuru Cheikh Moussa ne moom la maam Cerno daa barkeeloo ngir kaat sol na bu Bamba siiru mooma yar mooma yor bul ma royo ku ma roy xam ni roy du fi piiru Sëñ Fallu mooma def xar ko aadati fu ma jëm ñuy ma xaar ni ki moo ma def muxjisaati wayaam moo taxit sama way dem ba buuroo baayu mbeen moo xaram sama way ba mu safoo moo taxit sama tur dem na biiroo baayu mbeen moo ma def werakaanu këramoo moo taxit sama wax dem na buuroo Sëriñ Fallu moo ma def werakaanu këramoo moo taxit sama wax dem ba wóoroo moo ma may fu ma jëm ñuy ma may moo taxit maay jigéen moo di góoru moo ma fal ba ma siiw ba ca ndaro jàll naa wey ji waalo gilooro mama may lii maam